aleykoum tout le monde Mangi, suis ñep explication bu gaaw rek seen activiste membre du mouvement de alors li jitu d'abord moy man dama ñep quoi di parce que olof day wax fa yow yegg du man éggu fa te instant yi yi nekk ci guerre guerre médiatique communication dañuy dénigrer di di rek expliquer mu comprendre carrément li tax man na signer sous contrôle judiciaire parce que dama gëm ni man gisuma sa raison d'être bu ñu waxante dëgg rek parce que ñun bu dee liberté provisoire la suñu avocat dugaloon nañ ko di xaar 15 jours ñu toog di xaar waxuñ si ñu téye ko affaire bi dem ba 1 mois ñoom ñu rejeté ko teguñu ko fenn ñu xëy à ma grande surprise ñu ne ay artistes ñoo dugg palais dem ñaan fa pour man sama liberté provisoire ma jàpp ne justice comme ni ñu koy waxee justice bu war bu indépendante justice bu ñu wax ci république du benn nit mooy toog ñu koy ñaan muy maye ñuy bàyyi kii wala ñuy téye kee mu tok ci palais bi nan dugal len ma pousse ko ñu bàyyi ki wala ñu jàpp ki wala ñu bàyyi ki parce que loolu la ñuy xeex donc quand quand le président se joue de la justice ñu dañu wara taxaw ne ko dedet te loolu bokku na ci li koy wane quoi benen bi moy euh man samay frère Bayna Gueye ak Ousmane sar ñing ci kasso bi nek samay frère yo xamanteni ni man defuñu dara lu dul taxaw rek ne libérer Pape Alé libérer Karim Xrum Xax libérer Cheikh Oumar Diagne juste libérer ñu jël len tëj len ci kasso bi defeere len ñu defeere leen yóbbu leen parquet defeere leen tëj leen ci kasso bi xawmu luy sen soor man duñ ma gën a gore man man nekk man ma génn bàyyi leen si kaso bi te ñu ma doon xeexal man ma ñëw taxaw di signer ay liberté provisoire di génn di di dox ci dëkk bi nice ay nit di xeex di di ma xeexal ma dem mel ni comme si de rien man loolu du ma ko def léegi nag justice dañu bëgg mu indépendante mooy indépendante dañ koy xex te xex du yam ci ay wax rek. ni ñu koy jëfé mooy il faut sénégalais bu nek comprendre nak nga wara xexé ñu fexe ba justice bi indépendante pouvoir judiciaire nekk fi pouvoir exécutif taxawé né pouvoir législatif taxawé né ku nek am sa dolay bop loolu moy état de droit loolu moy république. te loolu motax man sous contrôle judiciaire lan lañ def ñun bay signé sous contrôle judiciaire lan.